waaw Moussa démb ak tey démb ak tey démb ci guddi laa romb benn station service ay 23h30 mm-hmm. euh, mais li fa nekkoon ci ay oto passé na 50. Mm-hmm. man kay gis naa image yi nga ci jël. waaw absolument dama mm-hmm. dama jaaxle woon mais tey nag à ma grande surprise ma gis station yi vide pour man station yi jamono jooju. daa am essence jël ba noppi dem. waaw ma ñëw gaare naa si ñaari station mais station boo ñëw ñun la carburant amul. mais Pape Makhtar loolu jéyee la ci réew. ah vraiment. ndaxte euh, carburant amul moom mooy léppay taxaw. Ah, wallaay li taxaw day bari. li léppay taxaw. du oto yi euh, du yi rek. Euh, waxuma sax oto yi nga xam ne boo jëlee ci oto yi rek oto yi transporté nit ñi déjà bu ñu demul du ñu mën a liggéey. boole ceeg oto yi war a transporté lu ñuy lekk. Ah, am na dëkk yoo xam ne bu oto jugewul Ndakaaru wala Ndar jën du fa am. Euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu moom je crois que euh, su fekkee ne góor am na urgence. Mhm. bii moom war naa bokk ci urgence bi ko war a gën a yitteel. Mhm. Mhm. waaye nag li ma ci jaaxal Pape. mooy euh, jamono jooju sénégalais yi nekk ci ci njàqare boobu. te ñu xam ne gouvernement pour le moment li mu wax solution taaba taaba rek la taf yëngal. en attendant bés bu gën a rafet. parce que crise ba nga xam ne moo ne moom la ñu wax ne moo ko waral jeexagul. te te te te que mu ngi fi jafe-jafe yi defe naa ne du fi gaaw a jóg li ma jaaxal pap mm-hmm. mooy moment boobu euh, président de la République du Sénégal mm-hmm. au lieu que mu consacrer l'essentiel de son énergie à jéem a trouver ay solution ci loolu mm-hmm. moom ma ngay lijjanti ay transhumants looloo jaaxal ñëpp man j'étais choqué bi ma déggee tey suba président wax ne am na ay maire opposant opposition yu ñu wuy si te am na ñeneen ñoo xam ne dina dinañ ñëwaat bokk ci ñun dama ne mais président Macky Sall moom xanaa yëgul ne adduna baa ngi toj hmm? accouchement gi toj. sage femme yi tey jii dañu décrété dinañ ci ñëw. Mhm. mais boo seetaanee débat bi am euh, démb. Mhm. Euh, diggante Marine Le Pen ak Emmanuel Macron. Mhm. nga xam ne ñoom euh, tubaab yooyu. Pape loo leen mënti reproché fa ñu fa seen njiit yi teg curseur bi foofu la. mooy ñoom ñi ngi débattre ci ay questions de développement ñoom ñi ngi débattre ci géopolitique ñi ngi ñi ngi débattre ci les conséquence de la guerre en Ukraine ñi ngi débattre ci lan mooy ëllëgu France extra extra ñun ñun pendant ce temps là wax naa ko fii démb ñi ngi débattre ci diwa tëdde diw ak diw tëddewu ko mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. yokk ci le président de la république bi nga xam ne moom moo war teg le curseur fi nga xam ne fa la bëgg sénégalais yi euh, di fa def l' de leur énergie moom lan la ñu dikkee tey suba ci taskaru xibaar yi mooy euh, euh, élection législative ku yaa xam mais man dinaa am majorité maire yi bokkoon ci opposition bi wuy si nañ ñëw am na ñoo xam ne ñeneen dinañ ñëw mhm. je suis vraiment désolé mais j'ai l'impression que ni on est complètement mhm. à côté de la mhm. plaque Euh, Oustaz mm. yaakaar station service yi presque euh, amul amul amul sax euh, ku fay taxaw. am na ku may confirmer ni Moussa Diaw nee na ma je suis dans les embouteillages je confirme ce que tu dis les stations sont vides et les pompistes se tournent les pouces. alors mm. euh, demain euh, les pharmaciens privés seront en grève aussi. loolu xam naa dinañ si ñëw. diggante huit heures ba quinze heures dañuy tëj. waaw absolument dinañ si ñëw ci kalam moom ak sage-femme seen seen grève yi nga xamante ni jot nañ ko décréter mais Oustaz tey jii dafa mel ni état du Sénégal. Euh, jafe-jafe askan bi taxu leen taxu leen préoccupé parce que bu ñu déggee ni démb démb euh, fële ca palais de la république dix heures de temps ñoom Benno Bokk Yaakaar nekk nañ fa di waxtaane mbirum politique def seen i ndogu te problème mu Sénégal yi benn yoon ñu wax waxtaanewuñu ko xam nga politique bu fekkente ne dañ ko taxawal pour politique kese loolu musiba la mhm. politique dafa war am loo xam ne moo tax mu jóg. Mhm. loo xam ne askan wi servir askan wi la parce que ñi nekk ci nguur gi ñi nekk ci pouvoir bi dañu war a xam ne euh, jaamu askan wi lañu. Mhm, mhm, euh, boo nekkee jaamu askan wi nag da ngay euh, da ngay jaamu soxlay askan wi. nga taxaw ak ñoom ci seen priorité parce que li ñu wax nii. xaw na tiit tiit tiitle ci crise bu am fële bu fekkente ne moo tàmbali di impacté nii xaat. waaw te xamuñu. kañ lay kañ lay jeex. nañu laaj suñu bopp fi ak 6 mois kon ñun fan la ñu jëm. Mm. ak yenn solution alternative. Eh, eh, fii ak semaine prochaine oustaz. <laughs> voilà exactement balaa ngay wax balaa ngay wax 6 mois fii ak fii ak semaine semaine euh. léegi nag euh, loolu dama xamul faay boobu ak euh, impact direct boobu lan moo ko waral ndax est-ce que matukaay yi nga xam ne stock yi nga xam ne waroon na am. Mm-hmm. ba nga xam ne waroon nañu am diir bu yàgg yàgg yàgg boo xam ne. Mm-hmm. suñu stock ci wàllu carburant war nañ ko mën a utiliser balaa bu fekkente ne bu taxawee lii ñëw bu taxawee rek jafe-jafe dafay am dal di am directement kon problème am na euh, ñun encore war nañu xalaat stratégie yi ñu war a mën a am ba pétrole bi ñuy wax ne am na fi am na fi am na fi ba léegi mm-hmm. nan la ñuy def ba exploité ko ba wuutal ko solution boo xam ne solution définitive lay doon ci ci yu mel noonu mm-hmm. yaakaar naa daal bu ñu doon xalaat problème bi long terme ak court terme war nañ ko ci xalaat mm-hmm. euh, court bi nag moo gën a urgent ne waroon nañu am benn stock boo xam ne moo ñuy éviter jafe-jafe bu mu nekk lu direct. Mhm. ba ca topp mooy ñu ngi wax ne pétrole am na fi léegi am na fi mais kañ lañ ko commencé naan. il faut <laughs> euh, loolu itam ñu ñu ñu jublu ci ñu xam ne corona bi jàngal nañu loo xam ne euh, leçon boo xam ne war nañ ko tari mooy ne képp koo xam ne yaa ngi sukkandi sa mbir ca bitim réew dina am bés rek nga nga nga nga nga wéet ak sa bopp. Mhm. Mhm. doo am solution. kon euh, ministre bi moom mi ngi dé euh, mi ngi dédramatisé boo ko déggee moom euh, ci tweet bi mu bu mu jot a def nee na que ni voilà. am na benn navire société africaine de raffinage est arrivé hier mercredi avec dix huit mille tonnes de gasoil celui de Total Énergie est confirmé pour ce jeudi avec trente et un mille tonnes note le ministère il ajoute que dix huit cinq mille tonnes de supercarburant Total Énergie sont en cours de déchargement. alors est-ce que lii nii mën na mën na mën na tee euh, sénégalais ci euh, ci diir bu yàgg. ci diir bu ci diir bu yàgg li ñu bëgg daal. mooy ku dem solution taf yëngal la rek. waaw ku dem ci station yi daal sachant que te bu ko waa bitim réew gënee soxla ñun dañuy ñàkk. oui waaw solution bi daal mooy ku dem ci station yi fekk fa essence boo xam ne mu ngi nii. Hmm. waaye li nga xam ne ñëwagul sax loolu mu ngi mel ne nga am saako dugub te fekk amuloo reeruloo amuloo reer. Hmm. te xamoo dugub ba sax nan la dugubee loolu yaakaar na urgence bi weesu na ñuy xaar stock boo xam ne xëy na mu ngi ci géej gi ñëwul. li ñu bëgg daal nan la yan solution la ñu war a mën a def ba nga xam ne nit ki nga xam ne euh, otoom amul essence mu nekk ci ci ci station bi. Mhm. nan lay def ba man fa am essence nii nii nii nii. loolu taxawaay bu rapide boobu bu gaaw boobu la ñu war a la war a la ñu war a def. xam nga su su su fekkoon ne euh, crise mondiale la. Mhm. Euh, euh, ñëpp xam nañ ko réew yu bëree bëri lay laal mënul épargner Sénégal. absolument mais su fekkoon ne ñun Sénégal dañu sentir une mobilisation des autorités de la plus plus haute autorité ba ka ci gën a ndaw nga xam ne ñii mbir mi def nañ ko muy seen mbir amatuñ benn jot budul trouver des solutions à ça muy. manqué gu essence manqué manqué gu gaz manqué manqué gu kérosène manqué mhm. mais également euh, grève bii nga xam ne moo jëm ci wàllu santé te nga ne après dinañ ci ñëw mhm. su fekkoon dañu sentir une mobilisation du gouvernement Absolument. autour de ces questions la amul problème mën nañ xam ne lu luy ñëw la mais gouvernement ngi jëm ci solution mais su fekk su fekkee oui su fekkee ne moment boobu mhm. loolu di am yow nga dund ko kenn ñi ñuy déglu di ko dund ñoom moment boobu nga ne président de la République toog na pendant dix heures de temps ak waa Benno Bokk Yaakaar di waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar mm. la ñuy waxtaane politique donc mm. nu ñuy def ba xëcc ay maire yu bokkoon ci yeneen i parti gagné euh, ne dañuy jaay seen ngor ñëw ànd ak ñun mm-hmm. man dama ne foofu la problème bi nekk mais lan lan moo tax en fait mépris la wala wala négligence la wala lan la moom xamul ay responsabilité monsieur le président de la République ak koo xam ak koo xam c'est-à-dire que nag dafa am suñu benn mag boo xam ne day faral di bind lu bari euh, Mody Niang mhm. dafay bind très souvent euh, booy bind président Macky Sall tudde ko le président politicien mhm. cest dire que Macky Sall politicien la waaw modina Niang moom boobu xam-xam la waaw Macky Sall Macky Sall dafa dafa dafa bëgg politique uh-huh. waaw moom lu acte bu muy posé boo ko xoolee gis politique ci ginnaaw mhm, euh, te man parfois je me pose des questions et je me dis que ni man bi ma doon wax naan dama rêvé un président Macky Sall boo xam ne les dernières années de son mandat. daf koy def la totalité de son énergie de ses activités. mu consacré au Sénégal et aux Sénégalais seulement. amatul beneen jot bu dul lijjanti mbiru Sénégal. Mm-hmm. nga xam ne day nekk président boo xam ne bu dee jeexal mandaam en deux mille vingt quatre dañ naan xool leen li mu fi inauguré mhm. xool leen li mu fi tabax xool leen li mu fi changé xool leen xool leen xool leen xool leen ba pare mu ne tàggu naa leen maa ngay dem gis nga su boobaa mhm. fii lay toog ci Mermoz mhm. di du di mëne vie bu ko neex su Sénégal soxlaa am jafe-jafe dem woo ko ne ko kaay lijjanti ko wax ma sax Sénégal mhm. mais mën na sax di lijjanti ji lu mel ne Afrique mën na sax dem nekk secrétaire général de l'ONU mhm. euh, parce que ñu bari ñu koy tuddal mais nii ma gis mbir yi doxe li ma gën a gis mooy un président politicien qui se prépare à aller à des échéances électorales un président politicien mhm. qui se prépare à des échéances électorales euh,